ci lay amee li nga xam moom moom ci lay amee yenn koom-koom yi parce que mm, xam lu tax tey on est dans un monde complètement ouvert mm-hmm. parce que bu la France nangalul leen li village planétaire soo demee Allemagne mu nangul la ko mm-hmm. soo demee Angleterre mu nangul la ko soo demee Russie mu nangul la ko soo mm-hmm. demee Chine mu nangul la ko Turquie et cetera donc on est nekkatuñ ci jamono boo xamante ni c'était ou soit c'est la France ou c'est loolu moom weesu nañ ko donc le monde a évolué et je crois que aussi la France doit être en phase avec l'évolution du monde. surtout ça. donc ñoom tey je crois que li nga xamante ne bu ñu bëggee réussir la coopération win-win. entre mhm. ñoom ak le Sénégal. Mhm. il faut qu'on redéfinisse aussi les paradigmes yi nga xamante ne en tout cas de coopération avec avec euh, l'état du Sénégal. Mhm. te ñi nga xamante ne ñoom ñoo toog fii. et il s'appelle même des souverainistes mooy ñun dañu war am suñu souveraineté ci ci ci fànn bu nekk mais mënuñu par exemple tey. après 64 ans d'indépendance qu'on toujours sous la coupe de la France notamment avec l'histoire de la de nga xam ne nit ñi ba léegi boo waxee problème monnaie les gens là on parle de choses mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. boo xoolee ñi nga xam ne dañu am la souveraineté commence d'abord par la souveraineté monétaire et qui n'ose pas cest à doo am benn résultat mais nit ñi jàpp nañ ne tey bu ñu ne génn nañ UEMOA wala am nañ suñu monnaie c'est comme si ñun dee nañ mais les autres et les autres pays yi nga xamante ne ils ont leur monnaie. Mhm. ñoom nan lañ nan lañ def te soo xoolee aujourd'hui en Afrique ñi nga xamante ne ñoo nekk dans des unions monétaires. Mhm. muy mois et la CEMOA. Mhm. mais ñoom boo xoolee o classement des pays africains les plus développés en tout cas au plan économique. jàppal ne ñiy utiliser CFA ñoom pour ñu ci gën nekk dans le bas du classement ñoom ñun ci on fait partie de ces pays là. lañ bokk. ci lañ bokk le Sénégal aujourd'hui en Afrique ñun vingt cinquième pays économique vingt cinquième pays <laughs> au plan mondial nous sommes cent soixante neuvième sur cent quatre vingt treize c'est-à-dire que ñun te loolu attention monnaie bi ci am influence parce que monnaie xam ne c'est contrôlé par les français finalement on n'a plus notre te France bi nga xam ne ñun mooy tëgg suñu monnaie ñun dafa am benn redevance boo xam ne ni dañ leen koy fay parce que ñoom <laughs> kii ñu ko nii gratuitement te nag jibi je dis une chose aussi ki lay tëggal sa monnaie tu n'as pas de contrôle sur aussi la muy def ci monnaie bi nag ki la koy tëggal amoo ci amoo ci amoo ci moom benn. amoo ci moom boobu. noonu moo may moo ma xaw yóbbu tey ji ci benn ay quelques presse yu may gis ci Sénégal. Mhm. Mhm. donc ñuy wax ne hmm, euh, Ousmane Sonko président Ousmane Sonko day bénéficier wu ah, protection boo xamante ne ni c'est assuré par les services de l'État maanaam waa GIGN donc euh, déjà xibaar boobu bi nga ko déggee donc même su fekkee am na ñu ko jege ñu ngi ñu ngi démentir. waaw mais pourquoi pourquoi parler de ça également. waaw mais xam nga mooy li wax rek man je crois que il ne faut pas que ñi nga xamante ñoo nekk au pouvoir qu'ils se laissent divertir par ça. waaw yooyu ay divers waaw. non pour man vraiment xam nga Sénégalais ils sont toujours vraiment dans la diversion. parce que boo xoolee yenn journalistes yi aussi seen euh, en tout cas ligne éditoriale. Mhm. de tout temps ça a été une ligne boo xamante ni très dure. contre mhm. ces gens là qui sont aujourd'hui au pouvoir. Mhm. am na ñoo xam ne ñu ngi koy jéem moduler mais boo xoolee ni ñuy bindee ba léegi xam ne toujours ils sont dans ce combat là même su fekkente ne dañ koy xaw a léegi nag ñi nga xamante ne tey ñoo nekk ci nguur gi il ne faut pas qu'il se laisse divertir par ça. Ousmane Sonko bénéficie des GIGN et cetera. moi je crois que El wax leer na. nee na waaw gis mu mu mu il a démenti en disant que non seulement Sonko n'est pas demandeur. il n'a jamais euh, sollicité ni bénéficié d'une quelconque protection de la part des services de sécurité de l'État et c'est le porte-parole du PASTEF. waaw il est important de souligner que donc dès l'instant El Hadj donc man je crois que kaddu El Hadj moom moo gën a wér ki nga xamante ne moo gën a xibaar et même loolu tey su amoon mais Ousmane Sonko mais il est dans un dispositif boo xamante ni qui peut lui permettre aujourd'hui mmh. et c'est pas n'importe qui de bénéficier de la pro euh, protection de mais Adji Sarr dañ doon wax naan ay ay waa bib ñoo ko doon ñoo ko doon ah, garder waaw wax nañ ko fi de wax nañ ko fi de Adji bay bénéficier wu ci loolu les gens disent que chaque jour Adji Sarr ñaari bip ñoo ko doon ñoo ko doon garder. waaw waaw Adji moom mi nga xam ne Adji Sarr lan liggéey réew mi lu taal réew mi. c'est comme Adji mi taal réew mi moom moo war a mën a am une protection de la bip waxatuma la ki nga xamante ne wóor na ne il est au service de son pays. Mhm. non il faut pas vraiment que les gens la laissent divertir par ces histoires d'information. la Bible, qu'il y la, euh, pour man daal man loolu c'est ça c'est pas important. Mm qui important ñoom li nga xam moom lañ namu ci réew mi le président Bassirou moom. muy neex mu naqari il doit en bénéficier et il en bénéficie parce que c'est le nouveau président maintenant le jour où Ousmane sera nommé quelque chose dans le gouvernement mu leer ne ça requiert la protection du en tout cas du GIGN ou bien en tout cas de la de la euh, de la BIP su boobaa il il va en bénéficier. Mm -hmm. mais pour l'instant daal man pour man yooyu c'est pour retarder les gens là quoi et puis Sénégal ñu ngi ci beneen cap quoi. waaw vraiment ñu ngi. mooy li ñaan dañ laa yónni yàqamti la quoi. waaw waaw ñu ngi focus vraiment ci ci ci leneen. waruñu fee nekk wees nañ élection yi moom je crois focus maintenant sur la matérialisation du projet. oui c'est ça te pour matérialiser projet projet bi xanaa ki jiite projet bi war naa nekk au cœur du dispositif de. kan Ousmane. waaw ah au cœur même. waaw ma xam nga xam nga tu sais Ousmane mënul ñëw ba heure bii. Mhm. retiré wu c'est pas possible. xam nga tey ji bi euh, stratégiquement. Ousmane même su newoon même même su newul woon. Mm-hmm. ni nii nii dans un poste nominatif nii. Mm-hmm. mais jàppal ne il est au cœur de ce projet là. parce que la réussite de ce projet. Mm-hmm. moom sa lui tient beaucoup plus même à cœur que ça lui tient ça tient à comment dirais à parce que que les gens n'oublient pas que c'est lui le le leader. c'est-à-dire le porteur du projet. moom mooy porteur du projet. non c'est lui. c'est lui l'inspirateur de ce projet là donc loolu nit ñi nañ ci bàyyi xel. que les gens vraiment man daal pour man li ma jàpp mooy nit ñi. nañ am njort bu baax que ne Ousmane Sonko moom li wóotoon mooy li ko ñor mooy il va travailler pour ce pays qu'il soit dans un poste nominatif ou pas dans un poste électif mais ce qui est et certain mooy moom loxoom du mës génn ci li nga xam ne mooy avancer loo réew mi comme il a fait nag de tout temps voilà. Mhm. alors ban ban euh, xam laajoon naa la ko ci commencement bi mais xëy na ni ma la ko laajee la mais ban gouvernement ñun ñun sénégalais yi la ñuy xaar fi mu toll nii ban gouvernement. bon buñ ñu mën a tegal parce que am na bu fi bu fi amoon ñu naan ay gouvernement de combat ay xawma d'attaque xawma nu ñu ko tuddee woon. waaw man je crois que slogan yi sax nañ ko moytu. waaw waaw li war a mooy un gouvernement vraiment efficace et un gouvernement aussi restreint boo xam ne nii c'est pas pléthorique. nañu dimbali ci gouvernement yoo xamante ni ay trente personnes parce que il y a ay vingt cinq trente personnes pour man jàpp naa ne ñooñu duñ liggéey. Mm-hmm. pays yi nga xam ne ñooñu ëpp doole. Mm-hmm. tey boo xoolee seen gouvernement yi lu mu bëri bëri ay vingt personnes nga fay gis. waaw te ñooñu ëpp non seulement au plan démographique mais au plan économique aussi ñooñu ëpp doole. ñun ñi nga xamante ne ñoo gën a néew doole au plan économique et démographiquement aussi ñoo gën a néew. Mm-hmm. am yoo xamante ni tey boo leen jëlee cumulé leen bi. waaw lu mel ni ay sport la la mais li ñu war a éviter daal mooy c'est-à-dire daal di def def benn genre tong-tong tong-tong boo xam ne da nga ne wooy ministre waaw ministre auprès de waaw wala wala wala nga jël benn ministère rek nga ne bon je prends le sport jox naa ko ki ma jël jeunesse kese kese jox naa ko kii jël naa ministre ah, tel rek jox ko kii non non y a beaucoup de ministères yoo xam ne nii qui peuvent aller ensemble PAM culture communication c' est des ministères qui peuvent aller ensemble moo gën nga ne naa jël culture jox ko ma Samba pour ma am am poste déedéet. il faut regrouper les leen su fekkee ne 17 ministres a nekk et faire de sorte que aussi que cet esprit de la parité parce que man loolu dama gëm esprit parité boobu nga xam dañ ko institutionnaliser mais pas pour la formation du gouvernement mais pour la formation en tout cas euh, au niveau des instances électives et semi que même loolu ñoom ñu fësal ko dans le gouvernement. Mhm. fu ñu jëlee benn góor war nañ fa mën a jëlee benn jigéen. mais mu bañ am vraiment benn en tout cas déséquilibre. déséquilibre boo xam ne ni dafay feeñ. ñu gis ne góor ñi dañu ëppee jigéen ñi lu bare bare loolu moom ça ne fait pas bon te boo xoolee dans ce jigéen yi ñoom ñoo ci gën a fës. jigéen ñi ils se sont elles se sont données à fond man dama ci gis jigéen ñoo xam ne nii lu ne. regardez les femmes détenues ñi ñi jàppoon. Mm-hmm. les Matissar les les les les ah, les les Falla Fleur les les Nafisatou Gueye xoolal ma femmes yooyu nga xam ne dañ jàpp te terewul ba ñu génnee elles sont allées sur le terrain dem dem campagne yi. donc ce qui veut dire que jigéen ñi am na benn engagement je parle encore même des des yi nga xam may mun a jëy moo leen jiite woon. ñoom dem nañ ba Fouta. Mhm. avec les Aïssata Gamé et consorts dem nañ ba Fouta de l'autre la Khadija Mayekor donc pour dire que jigéen ñi am nañ ci benn engagement boobu moo tax dans la formation du nouveau gouvernement man li ma ci xaar mooy d' abord les compétences compétence nag ji bi du ci sa camp rek la mën am compétence mën nga koo fekk ci même ñi nga xam ne ñoo fi jógee am na ñoo xam ne nii compétent nañ. set nañ sérieux nañ te bu ñu mënee liggéey bi man jàpp naa ne ñooñu ils ont le profil de l'emploi ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy ñëw boo ci amee compétence yooyu aussi nga jël leen au niveau de la diaspora aussi ñi nga xam ne mën nga jël au sein de la société civile ñi nga jàpp ne ñi war nañ mën a doxal réew mi nga jël leen parce que li ci am solo mooy. mooy lan plus maintenant dans un gouvernement de parti mais gouvernement bi cest di dire ça symbolise le Sénégal. mais ndax loolu ah. daa war a tax itam mooy ñi ñi ñëw soutenir la coalition dernière minute. non non non xam nga même même loolu Ousmane a été clair. waaw Ousmane a été clair boobu tey il faut problème la bu ñu war a régler. non lu ñu solo. c'est pas ñoo xam seen ralliement yi nii. non mais waaw dem jàppale coalition bi. dara waralu ko suñ ko ñoom suñ ko jàppee. seen habitude la scénario bi rek la ñuy répété. d'accord moom laa la mais xam nga ñoom suñ ko jàppee mais tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk à la tête de cet état là ñoom jàppuñu loolu. parce que Ousmane a été clair. day leer de Ousmane li mu wax da fii du affaire u seddoo c'est pas un gâteau qu'on se partage. ci meeting de clôture bi il a été catégorique il a été formé. il a été clair waaw non même soo ñëwee rallier aussi la ne veut dire que tu droit à un poste même gis nga ñi nga xam ne ils ont ils sont là depuis le début du combat jusqu'à aujourd'hui cela ne veut war a am poste. depuis la création du PASTEF jusqu'à aujourd'hui nga xam ne ñoom tamit ils sont dans le combat cela ne veut pas dire que forcément que ñooñu aussi dañ leen war a jox benn poste gouvernemental man li ma jàpp mooy on est dans un pays on a prôné l'unité nationale on fait appel aux compétences ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a mën doxal c'est vrai que mën nga am benn prime boo xam ne pour ton parti parce que aussi parti bi après tout ñoom ñoo sooke affaire bi mais cela ne veut pas dire que dañu ñi nga xamante ne ñëpp am nañ ay compétences dans la société civile dans d' autres partis politiques te ñu nangu ko ou bien au niveau de la diaspora qu'on les fédère et qu'on naisse un gouvernement waxee loolu papi yi nekk ci kii bi duñu yaakaar ne dañ ci war a bokk ñoom ay xali comme ku mel ne Khalifa Sall. non no mais mën nañ ko xaarandi moom ci. non non non jamais tamit Khalifa Sall Khalifa Sall il est du système Khalifa Sall à un certain tu as vu. que ah oui Khalifa Sall Khalifa Sall ay idée yooyu mais ça c' est le système Khalifa Sall c' est un. non idée waaw mais. Khalifa non Khalifa il est il est du système. ah mais Khalifa Khalifa c' est un enfant c' est produit du PS. kon ah, non Khalifa pourtant bon moom su ne anti système la aussi mais Khalifa c' est un produit du PS te xam nga ce qui ont le système ici c' est le parti socialiste le PDS l' hérité ba pare ñëw gën ko fësal. donc Khalifa Sall tu sais que c'est un c'est un produit pur du système hein Khalifa produit pur du système la parce que Khalifa c'était depuis le temps Abdou Diouf jusqu'à aujourd'hui donc kooku mënul nier dara sur euh, son appartenance au système mais la preuve aujourd'hui est-ce que tu as vu les résultats de Khalifa Khalifa kay bërilewul. tu as vu les résultats de Idi. zéro kay virgule. waaw zéro virgule neuf Khalifa am waaw est-ce que xam nga ne Bassirou Diomaye Faye li mu am. au niveau rek de Dakar laa de Dakar wax ma Guédiawaye Pikine de cest à li ma fi dakaar soixante dix neuf mille voix yooyu muy imam moo ëpp li nga xam ne moom la xalifa am sur l' ensemble du territoire national. Euh, résultat yooyu bettu la. non ça ne me surprend pas en fait ñoom Khalifa lay bett mais man ça ne me surprend pas man ça ne me parce que xamul tax mais imaginez va pastifier adhésion yi nga xam ne moo am à leur projet politique et en certain moment c'est-à-dire la cassure aussi est intervenue. quand Barthélémy Dias s'est permis de dire que moom kenn falu ko ku dul waa Dakar ñoo ko fal mais keneen falu ko. c'est hmm. c'est que c'est c'est faux. dama ne gis nga il faut rendre à César ce qui gis nga nit bu la defalee dara jiwi da ngay hmm. am honnêteté ak franchise nga ne diw mi day tey suñu ma defee lii. Hmm. man jàpp naa ne en grande partie wala à quatre-vingt-dix pour cent moom moo tax. Barthélémy s'il a été maire de Dakar. xam na ne ak quatre vingt quinze pour cent. Ah, c'est grâce à Sonko toog fii xataraayu na nee mukk kenn falu. aujourd'hui j'ai si le si le taxaw à treize députés. c'est grâce à Ousmane Sonko. Eh, loolu Ismaël Diallo waxoon na ko assemblée coow lu mais ma ne loolu mooy dëgg. eh mais jibi mais résultat yi wane na ko Khalifa sur l'ensemble du territoire national Khalifa a eu soixante neuf soixante neuf mille voix. sur l'ensemble du territoire national Khalifa ah, soixante neuf mille voix la am. man kay ah. waa ñoom. waaw ñu leen parrainé lool. c' est la grande question maintenant. xanaa voté luñ leen xam nga xam nga nit ñi. moo tax ces histoires de parrainage là il faut qu'on le revoie. Ah, tey tey ñi nga xam ne ñëpp dañu jàll ci parrainage bi. man dama jàpp ne say militant ñoo lay parrainé ci li ma jàkk. ah loolu kay ñëpp jàpp waaw. mais ces militants yooyu ah à ah, moins que xanaa militants yi aussi ñoom jàpp ci diggante bi ne peut-être nous allons voter utile. loolu aussi mën na mën na nekk une lecture politique. Hmm. mais ce qui est sûr et certain ah, mooy daal gab bi. gab bi moom kay non loolu moom. ah non xam nga ñoom aussi mën nañ ci <laughs> joxe lecture boobu ne ñoom parce que je l'ai entendu chez certains leaders ils ont dit que ñoom dañ ko def genre référendum ou soit c'est Amadou ou bien c'est euh, comment dire c'est c'est c'est Diomaye donc ñoom ils ont fait un vote référendaire sa a permis peut-être à beaucoup ñi nga xam ne ils étaient dans les autres oppositions euh, en tout cas dans les autres partis d'opposition ñu dem ñu dem votel euh, Diomaye ou bien ñu votel tout simplement Amadou Ba mais man li ma jàpp mooy c'est que seen parti yi ñoo représentatiful moi je n'ai représentatif ne la preuve quand un parti yow ki nga xamante ne tey moo jël troisième muy le pur le pur moom. man boole ma ko sax pur constant na. boole moo parce que pur au moins ils ont franchi la centaine de en tout cas de mille franchir nañ ko mais à part le pur qui qui est en troisième position Khalifa mooy top Khalifa vient avec et plus soixante soixante neuf mille voix au grand maximum boo ko doon arrondirel soixante dix mille voix la or le Pastef Dakar rek soixante dix neuf mille la am Khalifa sur l' ensemble du territoire soixante neuf mille voix la am. Ah. non loolu loolu <laughs> en fait man nu ma ko mën a analyser mooy aujourd'hui c'est-à-dire c' le système qui s'est essoufflé. système bi ci boppam. système bi moo essoufflé c'est-à-dire que système bi il faut mu dem defarwaat. Mm-hmm. indiwaat leneen lu bees. mais mm-hmm. système bi au bout de soixante 64 ans là le système s'est complètement essoufflé et le système s'est effondré le système s'est effondré gis nga actuellement nii del xool APR dans les jours à venir le parti sera complètement déchiqueté en lambeaux. ah bon ah parce que déjà certains disent que Amadou Ba yow da nga war sa fulaak fay da nga dem sa yoonu bopp. e ce qui est sûr et certain la bataille de de de succession en tout cas va va s'imposer au sein de Benno ou bien Macky taxaw ne man may kon ne nekk fi chef ñenn ñi aussi beddi dem seen yoon au soit Macky Sall ne am na ku ma fa war a wuutu et entre les parce que Abdoulaye Daouda Diallo quoi qu'il en soit du ko bàyyi kenn moom il a une légitimité historique Amadou Ba aussi su fekkee ne moom dafa bëgg a continuer sa carrière politique ou soit day rayante au sein de Benno wala mu génn yóbbaale une bonne partie comme l'a fait Mame booy Diao ou bien comme l'a fait euh, Aly Ngouille et et consorts mais li ma ci wax mooy daal système bi moom effondré wu na à eux maintenant de se renouveler ñoom du côté de, de du président ah. Macky Sall donc certains